بسم الله إلا ولا Bokki yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm sur www.igfm.sn donc tay dañuy am mbégte euh, dalal wali sec comme euh, chaque événement niñ koy defee dañ koy dalal fi ci IGFM bu waxtaan ak euh, ñun ci événement bobu nga xamanteni mom lay deugmal donc wali ñu ngi contane dila la dalal dila la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan. asalaamaaleykum Sénégal IGFM asalaamaaleykum internet yi maa ngi leen di bëggee système maa ngi bu baax.

waaw kala ngi kale ñu ngi ci dernier réglage yi. Mhm. ñu ngi ci dernier réglage ok donc mu nekk sa euh, premier grand concert comme ni ma ko waxee woon sànq nga benn laps de ton standby, by euh, ñëpp xam li fi xewoon di ñaan sa di ñaan yàlla sa papa suuf oyof ci kawam. yàlla xare ko àjjana et tout. Euh, donc nan ngay na a dundee événement boobu noonu sans pas. normalement inshallah. allah. Mhm. ñu ngi naan yàlla commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko rabbil alamin normalement on n'est pas venu pour. Euh, euh, tooyloo xol ni ci déjà maintenant hein hein c'est pas mon but le but de cet événement c'est ni ni ñeu ñëpp Nous ñu xam ni hein, bu mag bi wuy ji borom Nous fi bu ndaw bu feras <laughs> waaw. lan moy def tay sa force. Hein? d'accord donc est-ce que mën nañu xaar nga rendre ko ci. Euh,

bàyyi na fee valeur yu bëri bëri donc dama dégg ci ben émission euh, nga expliquer ne que peut-être que suñu culture nek na lo xamante da fay nek frein ci euh, évolution ce musique à l'international du man rek ñun ñep mhm. ñep ñun ñep sénégalais yëpp day nek frein ci ñun kër am na ko may waxtaanal mën a ko ku ci melni je parle pas de moi hein. ku ci melni ni Viviane dañ ko waroon di def defal chaque euh, chaque article ñu daggal ko benn montant ne ko vas parce que là elle essaye elle di di di mais dañ lay tënk dañ tënk. dañ tënk c'est-à-dire. c'est-à-dire euh, euh, culture bi dafa am loo xamante ni baaxul ak suñu culture ak fi ñu dëkk tekki.

ñii jóg ñee marche ñii kii xam nga donc loolu frein la euh, côté you know il euh, y a beaucoup de freins mais alhamdulilah ça va on essaye de de de percer. de percer ouais. d' accord donc euh, Mama Sita macha allah ñu ngi la ciy félicité gis nañ mu nekk vidéo bu nice heure boo génnee vidéo ñu ne bii moo daal. donc am ay rythme yu bees et tout ça est ce que mën nañu xalaat ne que da nga bëgg a def carrière internationale. tout à fait évident maa ngi ci ci yoon bi. Mm-hmm maa ngi jeex maa ngi koy jeex rek maa mu jàpp ko. <laughs> d'accord donc côté spectacle lan lañ mën a xaar. du loup. beaucoup de surprises incha allah. Mhm. y aura des artistes invités. Euh, man nag du may baaxoo sax di di di di di parce que soo wootee. Mhm. ku lim da ngay juum hein? mais bon sama événement yëpp ku wës a ñëw sama sama événement yéeg nga sama concert. côté sañse beeg yooyu xale yi namoon nañu. maa la wax lii mayoo ma dara <laughs> naa ci def li ma mën. waaw fan hmm. namante woon nag <laughs> dañoo namante woon. d' donc euh, ñu gis ne que Youssou Ndour euh, na li nga xamante ne moo di pause am et tout donc en tant que jeune ñenn ñi ngi wax sax yow mën nga nekk relève bi yow euh, ban analyse nga ci am. waaw pause moom mën nañ ko nangu Hein? parce que nous avons ko femmes qui dafa lu lu cher essayez de comprendre aussi un peu vous savez euh, euh c'est après que tu comprends Billy Amen il comprend beaucoup de choses ah je voyais des vidéos il sama pas yoon naa man boo ubbee xol maa ci ça, moom bu sama xol tu vois alors bi affaire bi sa réaction automatique automatique bi ah la mu def ci armeel li mu jaabante sama kër ku la ko day doo gëm jaabante kër maire bi lu xew ba ci fan yi passé ñu dégg benn affaire pour Aliou il l'a appelé pour voir qu'est-ce qui passe est que ça va xam nga loolu c'est-à-dire en fait c'est un poids bu denc ci moom mm. waaw léegi relève bi. bul xam moom lan la planoon ak Papa Thione lan la buggoon def ak Papa Thione lan moo doon yéeneem alors dafa dafa brutal ci moom man je parce que euh, loolu bokk na ci tax yi tax mu pause waaw. d' accord euh, donc tey euh, bu ma xoolee nii rek bi ngay ñëw fii ndiiraan bi nit yëpp et tout que Wally am na vie de famille. waaw vie de famille nag moom euh, ñun mënu mënaguñ ko am ni mu waree mais ça va ñu ngi sant yàlla. <laughs> ñu ngi sant yàlla fi nga bëgg dem yaa ngi dem enjoy li nga bëgg enjoy. tuuti tuuti rek. <laughs> tuuti tuuti rek ah donc euh, euh, euh, émission bi jeex na bu doon am nga benn message boo xamante ne yaa ngi koy lancé say fan si ñi nga xam ne ñoo la bëgg ak di lay doon. waaw sa pays maa leen di bëggee ah. di wax ni aussi ah, événement bi ma ba léegi def nañu ay sorties. def nañ ay sorties euh, ci durant sorties yi su fekkee wax nañ ci dara loo xamante ni nekkul lu waxu nañu comprendre peut-être dañ doon show ci événement bi wala je sais pas mën naa juum je sais pas mën naa fii fii quelque temps bu ñu tegee émission yi xam ne lii li ma wax ni jubul wala whatever so ñu ngi koy jégalu euh, beneen bi ci topp mooy euh, namm naa leen te xam naa ni namm ngeen ma yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ak jàmm tal ko

Jagoro, Rapidos, chez Oro, Rapidos, euh, Makabujiche, she, El Pocho, Penchimi, she Papachon, ah, chez Mohamed Nyan, chez Poubelle, euh, à Pikim. amna na sax grand théâtre eh, wa aba ah, sax mi ngi joxe ticket donc vraiment. <laughs> kon man ma ngi xaar sama ah, wa <laughs> Eh eh chez eh, Papa You. incha waaw chef chef papa yu waaw waaw ak chef papa Mara Dieng chef papa c'est lui. waaw waaw chef papa Bouba ñun ñëpp waaw. lan lay tëjee waxtan bi. waaw euh amna contentement ñëw fi tey am naa contentement ñëw fi bu baax baax parce que euh waaw je suis à l'aise je suis bien accueilli hein, vraiment ci porte bi la tambalé. ah je suis très bien accueilli ah vraiment ça fait plaisir. waaw di reetaan yi koo ci gis day donc je suis très bien accueilli Content naa trop waaw gis naa accueil bi macha vraiment dans ah groupe Futur Média vraiment RFM ah IGFM ah, TFM vraiment chapeau gars yi dañoo baax dañuy reetaan rek dafa mel ni dafa mel ni un Youssou bu du fii ah je suis content. je suis content waaw internet eh, IGFM ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi nekkoon eh, ki nga xam ne mooy Balago Seck di leen jox dig daje ba beneen ak keneen merci beaucoup.